mën na ko mën mën na cee euh, jariñu àdduna mën na cee jariñu àllaaxira mm. euh, te yàlla dogal ñu ko ittewoo bari lool ndax ñu ngi ciy topp bari lool mm. muy xam-xam boo xam ne ginnaaw biñ ci gëstoo aslëf euh, doon na ko tamit ci suñuy maam ñu indi ci nag loo xamante ne doomu dañ koy dañu koo yàggalaaj waaye lu jot yomb xam naa mi ngi doog a jot mm. ndax chaque semaine ñu ëpp lu nu laaj rek ñooñu la ñuy jox seeni seeni ñooñu dañuy leeral. macha tey nag ñu indi ñaar euh, lu jëm ci wàllu ay kayit maanaam ay papier euh, lu ko yombal ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi maanaam seeni kayit teel leen dem fu sori. am na ñoo xam ne ñu ngi ci bitim réew seeni këyit teel leen ñibbisi. ñu yàgg koo laaj ak wàllu tukki euh, léegi nag alxuraan indi na loolu fa huwa fii sati raadiyatin ki nga xam ne dafa bëgg ay kayit dëgër moo xam da nga koo da koo déposé woowagun ko mhm. moo xam da koy waaj a bëgg a déposé mhm. fa huwa fii satin radiatin su ko bindee cent onze fa huwa fii satin radiatin euh, benn bi mu sangoo ko benn bi mu takk ko téere loxo loolu moom euh, maanaam seet nañ ko seetati ko maanaam jar bu nañ ko ba tàyyi waaye nit ki bu ko defee di wut ay kayit ci kàttanu yàlla aay boobu day méngoog loolu bu fekkee koo xam ni dañ ko doon xaar da doon xaar pour ñu woo ko jox ko ay kayitam ca changé dañ koy woo jox ko ay kayitam. Mhm. bu fekkee kuy lijjanti ay kayit la bu ko defee ba pare moo xam visa la moo xam permis la moo xam passeport la moo xam façon pièce yu mën a doon su ko amee bu koy lijjanti dana yomb. ba tey fa saw fa yohazabu isaban yasira wa yanxalibu ila ahlihi masrora xam nga aaya boobu day méngoog ëllëg yomal xiyaam bu sunu borom wàccee jant bi nee na euh, taxawaay bu yàgg ba ku ko doon liggéey fii ci kurus sax boo yeggee da ngay ñëw rek malaaka yi jox sa sa kayit foofu sa téere jëf euh, luy yombal ay kayit nag yomal xiyaam sàkkamtuma ak àdduna moo tax fa sawfa yu asaabu insaaban yasira nga yam nga yam ci nga bind ko 70 benn bi euh, nga nga sangoo ko benn bi beneen nga bindaat ko beneen 70 nga def ko ci sa kalpe wala ci sa poos fa ko def balaa yàgg dina ñëw ànd ak say kayit fa ngay denc sa pees naafile bii nag képp koo xamante Euh, da nga koy ñaanal pour mu ami kayit wala moom muy ñaan ci yàlla bëgg am ay kayit su ko defee maa ngi giñ ci yàlla suñu borom dana ko yombalal kayitam ya muy ya lijjanti muy douze mille muy douze mille basmala la nag mooy bismillahi rahmaani rahim da ngay def ñaari rakkaa yoo julli ñaari rakkaa yoo julli nga werd ci kurus mille la julliwaat ñaari rakka werdaat ci kurus mille la di def noonu di def noonu ba ba ngay am douze mille basmala mm-hmm. nga ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu yombalal la sa kayit yooyu mm-hmm. loolu boo ko defee ànd ak sell ànd ak teewlu insha allah rabbi sunu borom da ci benn jotaay nag lañ koy def ba tey yàlla latif moom it euh, mag ñi dañ ci saafara loolu kilifa yi dañ ci saafara kayit mm-hmm. muy juróom-ñeenti junni yaa latif di quarante cinq mille nga nga mën nga ànd ak jàpp rek boobu moom amul naafile nga werdu ko juróom-ñeenti junni muy 45000 waaye nag junni boo boo werd ci yàlla def da ngay adat turu kii wut kayit. Mm-hmm. boo ko adatee ba xam lim bi ni mu toll. Mm-hmm. su ko defee nga sikkar ko ci euh, façon fa yuhasabu hisaban yasira mm-hmm. daal di weer daal junni yàlla def daal di daal di daal di turu ki nga xam ni moom ngay moom ngay ñaanal nga adat turam. daal koy sikkar ci façon fa yoxasab isab yasira ba keroog ngay am 45000 yàlla def hmm. loolu moom soo ko defee bu doonoon koo xam ne dafa déposé ay kayit toog wallaay asim semaine boobu wala fan yooyu dinañ ko woon kaay jël sa kayit di génn na waaw boobu mooy li nga baal ma si yàlla tif bi hmm. kon yàlla tif lu muy faj bari na parce que dañuy gis ne euh, jigéen warul buy euh, euh, am doom buy accoucher. Mhm. dañ koy faral naan ko euh, del del wax yàlla tiif pour sa accouchement gën a yomb. parce que euh, je pense que signification la yàlla tiif mooy euh, yërmande yàlla. waaw ah, yërmande yërmande yàlla maanaam day gaawal lu yeexoon. Mm. xam nga jigéen. bu fekkee dafa toll diggante day bëgg euh, bu am bu tollee ci day day bëgg machine bi gaaw. ni muy gën a yàgg muy gën a waaw léegi nag euh, day dox ci loo bëgg mu efficace. moo tax dégg naa Sidi Hadji Malick sax ci la toogoon ci yàlla tiif. Mm. Alaaji Fàllu Mbàkke tamit te mu gaawoon ay mbir rek moom ci yàlla tiif la toogoon ndax euh, boo xasee ba am ci ijaaba mën nga ci xëcc lu gaaw loo yàkkamti mën nga cee jañ. Mm-hmm. bu fekkee tamit nit ki day tukki tàggu la. Mm-hmm. nga bëgg ngeen gisantewaat ci jàmm ndax nit tukki naa ba tàyyi kat nga ja gisante ka mu tàggu ba faw bu fekkee nit ki day tukki day day tukki tàggu la mag ñi daan nan def boo demee ci isaa samahu in fatarat am na aaya bu ñuy wax yow ma laa tamliku nafsi li nafsin sayan wala amru yow ma izinillaahi bu ko defee nga wut juróom-ñeenti juróom-ñaari xeer xeer wu nekk nga jàng ci yow ma laa tamliku nafsi li nafsin sayan wala amru yow ma izinillaahi tifli ko tek jëlaat beneen xeer jàngat yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bi izni llaahi ba juróom-ñaari xeer yi mat léegi moom miy dem bis bi muy dem nga sànni benn xeer ci kanamam mag ñi daan nañ def tettal yooyu. sànniwaat benn xeer ci ginnaawam. sànni benn xeer góos sànni benn xeer droite. benn xeer bi nga sànni ko ci kaw fi ko tiim mu puus mu wadd ci suuf xam nga six xeer a ngi noonu nga jël benn xeer bi nga denc ko loolu ku ko def ak koy tàggatool fa mu jëm lu mu sori sori sori sori. incha allahu rabbi di ngeen gis dawaat ci jàmm. ba tey euh, kii nu sax boo demee ci alxuraan am na juróom-ñaari saar yoo xamante ne boo ko defee nga sangoo ko incha allahu rabbi di nga gudd fan mooy Fatiha nga bind ko sept fois ak Falaqi sept fois ak Xul yaa ayyuhal kaafiruuna sept fois ak Lilaafi si sept fois. ak euh, alam tara alam tara kay faf sept fois ak alam nasara sept fois ak laxat jaakum set fois loolu ki ma ki ki nga xam ni maa ngi ko jële ci moom sëñ Tuubaa ko uuf tudd nii may wax ak yow nii ma nga rattaaxe kaw am na téeméeri at ak fukk ak juróom boo ko defee ci leket boo ko defee ci leget nii boo ko defee asamaan si tiim ko ñaanu gudd fan la mm-hmm. boo xëyee nga sangoo ko boo xëyee nga sangoo ko. Mm. incha allah rabbi say at moom li ciy gën a néew téeméeri at yi dana mat. ba tegal ko ndax ki nga xam ne moom moo ma wax loolu. Euh, di ak moo xamante ni dama koo liggéeyal ba mu jox ma loolu. Mm. moom sëñ Tuubaa ko uuf tudd. Mm. te am na moom téeméeri at ak fukk ak juróom te nee na moom sëñ bi dafa santaane woon ñu defal ko ko. te doo naax sam xel tamit du du kii du jaxasoo. Mm-hmm. da ngay am téeméeri at ba pare mel ni ku am. quarante cinq wala mel ni ku am vingt cinq ans itaxoo itaxoo yow ma les yéen a nadduxoo nadduxoo na boo ko bindee tamit cette mhm. euh, fois nga nga sangoo ko doo faatoo àll mukk maanaam foo demit di nga dellusiwaat foo di nga dellusiwaat waaw loolu daal mooy li nga xam ni euh, moom leen indi woon tey ci émission bi euh, di jaajëfalaat mbokk yi di wax képp koo xamante ne tettal yooyu ñu joxe bëgg nañ cee gën a am ay leer ay leeral wala ñu bëgg a lu seen mbir dañuy woo ci 78 530 69 81 wala ñu woo ci 76 883 18 76. asalaamaaleykum xeer yi. ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax dig daje euh, mercredi prochain. incha allah bu fi yàlla bàyyee. yàlla dinañ fi bàyyi xeer yi. Euh, <laughs> xeer yi mbaa koy sànni. du fekk ni taxaw caaw caaw caaw caaw Kéna wëz mu ngi ñuy ñuy bëgg mu ngi ñuy xoj <laughs> nee na Tam Euh, ñu bàyyi la d'accord alors tey damay daal di euh, féliciter Lady dijà donc euh, c'est une copine à moi donc mu nekk meilleure révélation mannequin féminine AFA euh, 2023 sama mannequin international bi donc tu as représenté le Sénégal euh, on est habitué ci euh, genre élection yi nii nga koy daal di gagner tout le temps pour représenter rek li nga xam ne mooy sa réew Lady Ja on te félicite voilà donc mannequin yëpp a ngi lay féliciter. voilà donc di euh, remercier également ki nga xam ne mooy Choupi Bey euh, Bouchi donc moom moom accompagne également toute la semaine je te fais un gros coucou Ndeye Mbaye et merci beaucoup pour la coiffure à demain inchallah merci Kéna Pape Malick. ah merci beaucoup merci à tous merci aux téléspectateurs. moom da nga sa téléphone bi xaw ma lan ngay <laughs> xool xaw ma ngay lijjanti xaw ma lan ngay lijjanti foofu. <laughs> ah moom moo jaaxal. <laughs> merci beaucoup à la prochaine incha merci en tout cas merci à vous yéen ñi ñu doon teewlu merci à l'équipe technique Weuz ak euh, Bamba Khady ñi nekk ci suuf ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal dañu leen di bàyyi ak euh, les travaux au niveau de l'Assemblée tey nag vous aurez le ministère des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement des territoires moom ñoo fas moom la ñuy nattal nag li nga xam ne moom mooy euh, budget euh, journée tey bi moom la ak ministère de la jeunesse de l'entrepreneuriat et de l'emploi après ngoon ñu ñëw ak ministère du travail euh, du dialogue social et des relations avec les institutions mooy ñetti ministères yooyu ñoom la ñu nar seen budget ren gi ñu ànd ak yéen foofee ci assemblée jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi